sëriñ bi sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey. Cheikh Mouhamadul Moustapha maa ngi lay ziar bu baax maa ngi lay baalu àkk bu baax maa ngi ñaan sama borom defal la tawféex ci barke Sëñ Tuubaa. Masamba si la laa xamul nu ma koy def sama waay la dafa am ku ñuy wax Njaga Juuf murit Sadix. taalibeb sëriñ siiru Jeng moom soxna Awa Mbàkke moom sëñ Abdu Xafoor moom borom sàmm maa koy waxtaanal Njaga Juuf dafa yëkkati kayitu terrain jox ma nekk lu ma dig de dafa ma ne dama lay jox terrain ñàgg weesu si dama lay jox terrain bind acte de cession bi signé ko boole ko photocopie carte ni ma defal mutation bi xam nga gars yi dañ lay dig terrain mais duñ la jox waaye moom dafa maa jox Njaga Juuf di xaritam ñu xamante fa Njaga Juuf lu mu xew xewle maa koy waxtaan ma sàmba wax ma bis bi keroog bi ma ñëwee ci bisu sëñ Modou Abdoulaye juuf mii dëkk Daaru Salaam kokki juuf maa ngi ñaan ci barkeb Cheikh Anta suñu borom defal la tawféex waa daayira bi ma waxtaanee waa daayira bi far ñépp ni ñu yaa ñuy waxtaanal waaye ñun lu ñu am waxtaanee sëñ tubaa ñu ko gënal xanaa xamoo ni sëriñ tubaa na Cheikh Moustapha gaa ñu baax ñi seen jaamu yàlla sëñ tubaa na samay aada li ma ciy am ñoom amuñu ko seen jaamu yàlla xam nga lu uute aada ak jaamu yàlla ni Moustapha Kul di takkee kaalaam aada la julli gi ngay julli jaamu yàlla la sëñ Tuubaa li may am ci jaamu yàlla yi li may am ci samay aada gaa ñu baax ni dañuy jaamu te duñ ko am wali bihi wahabta fi aadati maa xaabahan akabiri sadati sëriñ Tuubaa na sama daraja kawe te dootul suufee ku bëgg ma suufe yaay suufe waaye man Ahmadu dootuma suufee darajati taalu walay setan xafit wa man naha minal wara xaf di xufit sëriñ tubaa nee na xaabat makaami an siwal baaxil karim wa inna ni abdun xadimun la yërim sëriñ tubaa li ma doon ku dul yàlla xamu ko li ma doon man sëñ tubaa ku dul yàlla xamu ko ñu ni ko nun nu ñuy xam ci yow mu ni wa inna ni abdun xadimun laa yërim jàmmi laa bu sax ci jaamu yàlla di liggéeyal Moustapha waxaat na la ko saadati bi xayri mahwin kutibat wa kaw ni yal abdal xadima xat sabat sama texe man sëñ Tuubaa yàlla bind ko te du ko far waaye doon naa jaam buy jaamu yàlla di liggéeyal Moustapha waxaat na la ko nazaani min minal waral baaxil xadiim allamahum bi annani abdul xadiim kon bokk ci parce que biñ ko seppee rek bokkul ci kuréel bi yàllaa ma seppi ci kuréelu mbindéef yi kon bokkul ci kuréelu mbindéef yi sëñ mbay ni ko loo mën a gis yàllaa ko moom faf na la jox la mu moom faf di yow gadi moom seenu digganteek rafet sëñ Cheikh sàmba Diarra di ko junj waxuñu lan la wax nga yoneen bi yow a yow ma ma ni la yow a yow nga ni ko yow ma ni la yow ki ma gisee la mat xam wax nga yoneen bi li mu doon ma ma wax la li nga doon moo tax nga def ma li ma doon ki ma gisee la mat a xam ku faatu yaa fay njëkk teew buñ koy jullee nga di fa teew ñuy rob nga ànd ak ñoom di teew ñu dem nga des tonti layam Cheikh Samba Diarra di wax turu sëñ tubaab bi rek lan lay def ci yow tudd turam may na ma xel bind turam may na ma xol sirub turam may na ma lool duma ko wax xel a koy xam xam nga luy sirub turam sekkere turub sëñ Tuubaa lay wax sirub turam may na ma lool duma ko wax xel a ko xam sekkere turub sëñ Tuubaa may na ma loo xam ne làmmiñ du ko tudd xel a koy xalaat cheikh Moussa Ka ni ko yàllaa la jiital fa xaddiim tuddee la ahmadul xaddiim jiitu na aadamaa doom jiitu na mboolem xarnu bi Serigne Touba nee na yàlla nangul na ma juróom-ñaar fukki junni at dara yàlla wuyu na ma juróom-ñaar fukki junni at dara ajaabani rahmaanu xablal xalqi sab'iina alfa sanatin bil haqqi sëriñ Tuubaa sama texe yit noonu la ko yàlla saxalee te dara amul sahaadati xablal wujuutil xalqi sabataha wa kuntali bi tilxi waaye juróom-ñaar fukki junni at laataa yàlla di bind dara wuyu ne la yow foo nekkoon boo jàngee mi daal di sëriñ Tuubaa ne buntu yàlla yi tëjuwul salimtu min al ahadai turan maal tijaal li rabbi wa baabullahi lam yakku murtajaa gis nga sëriñ fàllu dafa yéeme keroog bi muy jébbal boppam sëriñ tubaa dañu ko yaa ayuha cheikhu nafisul murtajaa yaa fatihan maa kaana xablu murtajaa dañu ko yow mi nga xam ni yaay sëriñ bi nga xam ni li nit ñi di sàkku yaa ci gën a gànjaru ni ko nag bunt yàlla yi tëjiwul de kenn xamul kañ lañ ko tijji waaye balaa ñu koy tijji yow tijji nga ko yow sëñ Tuubaa yaa faati an maa kaana xabdu murtaja sëñ Fallou daa yéeme dafa xam ki muy waxal ki muy waxal tijjul ko ay buntam mu ni ko des sama njureel gi li dox sama diggante ak yow muy njureel jaay naa la ko jëndee ko taalibe bixtu bu nu watiya bil irada lakum li kay ussa bi xarqi aada moo tax sëñ Fall keroog bi muy inauguré jumaa ji 1963 dugg ci biir jumaa ji rek daa wax ak sëñ Touba yaa saydan wa yaa mu ibban foi di dëhra mashwaaw sëñ Touba soxla sëñ Fallu ne ko inni ataytu li waj illaa izairukum abqi bihi nayla ma arju wa ahwaahu tey damaa ñëw ngir ziyaar la lenn laa ci sàkku mooy lépp lu may bëgg ak la may sàkku naa ko am ñu ni sëñ Fall looy xutba sëñ Fall taxaw ci minbar di xutba salaamaaleykum wa rahmatullah xutba bi du gudd waaye lu gàtt lay doon suñu waa ji ñu am ñoo xam ñu bëgg ñu ñu laa bëgg ñu xam ne ñun rek ko am waaye keneen amu ko sëñ Tuubaa mi ñu am nañu xam ne ñun rek ko am keneen amu ko ni wasalaam Cheikh Ibrahima Diop almasari nee na boo demee ci xadarab góor yàlla yi Serigne Touba koy jiite bu ñëwul kenn du taxaw bay sañ a wax wa huwa xatiibu rijaalullaahi fi hadrati likaa fa lam yakun min um xaa'imun samma xaa'idu Cheikh Ibrahima Diop almasari nee na bu dee ak ka ji dox diggante doom ak waajur lu war la ak ka ji dox diggante mbindéef yeeg Sëñ Touba gën naa war in kaana xaqul walidayni mu wakkidun falakku min ka alal xalaaqi aw kaddu eh sëñ Tuubaa ne li ma yàlla may ñu baax ñi la gën a yéem baat na di tukki wa jëhtali ma la yasaalu ajaba fi abadin li saaliina nujaba bokkut ak ma dattali ma la yasaalu ajaba billantihan li saaliina nujaba yàllaa ne ci alquran wallahu yaxtasu bi rahmati man yashaahu yàllaay xal ku ko soob mu jagleel la ci mbindéef yi sëriñ Tuubaa na jagla yi ma yàlla jox jox ko kenn te dootu ko jox keneen baat mu dukki ixtasani llahu bi ma lam yëkku nii wala yëkkuunu li siwaaye bikku nii ni jagla yi noonu la yéemee ñu baax nii ixtasani bi ma yaduumu ajabaa fi abadin li saaliina nujabaa baaxil xaddiimi ñu way xaddiimi muxti luwaa sëriñ tubaa dalal nga xel yi seral nga xol yi indi nga may yi bilanti xel sëriñ tubaa yaa sell dund amuloo dend yow rekk a ànd waxtal ana sëriñ tubaa quraan nga dëggal yonan nga dikkal yaa ko fi nekkal waxtal ana sëriñ tubaa wiital yàlla aza wa jalla man tey ma way la bisa cey sëriñ tubaa li mu tagg nabi moo gënal rabbi kenn du sëriñ bi fi lawliyaa yi buy tagg rasool aras di sàbbaal am laaj bi yóbbal li lawliyaa yi sëriñ tubaa loo way amii ni waa xuurul ay rim ko jinaan yi lil lawliyaa yi barke ak texe sëriñ tuubaay ki koy joxe ñëw leen te fexe wa naf u jaay sëriñ bay jaxate ne sëriñ bi kenn la ñu mboolem sëriñ bu koy def maasin na sàkk ku mel ni Ibra Faal ak Cheikh Ibra Faat ñu gis waa jàngoog Cheikh Ibra Cheikh Ibra xat fuxtari jaal Ibrahima jusal ma jaal Cheikh Ibrahima kalkamal wasalta kan lil jalal ibrahima fall lam yazal yuxti rixaaba fi lazal xata sabaxta fil kumal wa ma fi safxika asar yow mii war ku mel ni si xibla dootoo ko gis man raama mislaka ajaz fala yaraahu fil majaz zalika waadun xad najaz sarwaaka laysa fil bashar Cheikh Ibra liggéeyal sëñ Tuba ci ndigalal yàlla boromam xadamta ahmad al xadim بإذن ربك الخديم شيخك نور من خديم من شاك في خد أثر أي يومي كسكي ساكة تنبير الشيخ إبرا بلكو دف يا من يشك في تاريخ إبراهيم فالنا الشيخ فتم إلى رب البديخ قبل الممات وسكر نري نار بلو شي جبلو mu ne ku sikki sàkk ci mbirum Cheikh Ibra bu tuwul ba faatu safara la jëm man sàkk fii Ibrahima Fall wa fi tariqati lkamal in lam yatub li zil jalal yara azaban xat nukar yoon yi bëri nañu yoonu bàyyi faale ca gën tarixoo xayru turuux saliko kafal xaddan yakunu kal barax indes diami fil jasar moo ñu wan nu ñuy taalibe fekkoon na ñuy jàng fadaam moo fi xewal nuyoo diraam moo ñu tere wuyoo ni naam moom muy murit di fexe Cheikh Ibra bi mu ñëwee Mbàkke Bawal dani na waa kër gi bàyyiwal maay rod di sog ko akawal booleeg liggéey di ko joxe bi mu ñëwee Mbàkke Kajoor fekkoon na daara yi di sóor moo njëkk a màjjaalee ko ñu di ko ree di tex-texi jaaraama Seexi Ibrahima Fall lamp ngëneel bi Bamba leeral nga yoon wi yaay Kamaal yàlla nga doon yi bérexi sëñ Fall borom weer wi newoon na ñaar laay roy Mansouf ak taalibe Ibrahima Fall ko sopp na yëkkati loxoom ayaa xutba azala siriya seexi saaliw ayaa man awaa maalam yanal xattu saaliw yow sëriñ saaliw la anta allazi faaxal baraya bi zuudi wa taqwa wal ixlaasu innaka saaliw yow sëriñ saaliw sajaa yaaka taqwa laayi wa zuudu warida wa ubulu daawal xayru an safta saaliw yow sëriñ saaliw li ñu neex ci yow doon nga sëñ tubaa ci biir doon tubaa ci biti أورث خديم المصطفى ظاهرا وباطنا سيدا للأولياء إنك سالو مفتاح الجنة Cheikh Sall Mbacké yaay ki ko te ñëpp xam nañ ni diiwaan yaa di mbër mi fi raw ma jug te sant la ngir cant laa ma war ak cant day waral ndooleen alxuraan a ko wax baytil wilaayati Cheikh Sall Mbacké yaay ki ko yor yaay fal te yaay folli loo wax buur bi yàlla daal di ni kun amaana kuy bàkku Seex Saal Mbàkke moo ko jox la yor billaay ku mu rëcc ci say jàjji foo jëm kenn dootu la dar e Seex Saal yi way doonay xadiim yow mi gisul seexul xadiim soobul te farlu mooy xadiim nañ sant ñun nii waa këram yow Serigne Saal wi ni nga doon ci seexu naa moo tax nga dëddu àdduna lan daan na àdduna yaa ko fi ba yaa bëri ndam yow Serigne Saliou man mi gisul ahmaduna gis naa la yow xudwatuna yaa saytu mbooti cheikhina ahmadu mi asnal xadim yow Serigne Saliou sa baaya daan jëloo aras jiite jurbel fajar ñu gis ba tax ko aju fi yow durus tey ji àggal ak gënu jëm ñun ñëpp bokk sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey